thank you ñëw sóoru ko. sóor. maa yow sóor nga toll. wala li fi bàyyi. lan xoolal xanaa balaa ngaa sóor am loo ci def. watoo fi dépense. yóbbante ko teel yow gis nga man maa joob bu ma tax a jooy man yuuxu wàllu rek moo ma dese. waaye lu dul den nag amul lu dul jeex amul. yàgg nga maa weer dégg yaa weer lu may joxee dépense lu may joxee dépense te maa gën a umu umu. yaa may um jurlul moo umee kër gee umu tëju mënuñoo ubbeeku kër goo xam ne sabar yi xamuñu moment bu ñu ko war a tëgg ak bu ñu ko war a tëgg géwal day nàndatee xam heure bi nga war a tëgg am na heure boo xam ne boo ko tëggoo tëju carte gi mariage bi damyee bi ci kër gi ni kur sa doom yi nasu nu notti wuñu nawet bu ñëwee doo tëgg yow xamoo tëggum nawet xamoo tëggum noor xamoo no nu may def nu ñuy def suural ceeb bi noonu ñu def ci xorom ñànkatan ko noonu rek bu bu tiir tiir amul tiir amu fi asalaamaaleykum maaleykum salaam boo ñëwee rek xel dal wallaay cay ndi dama la koy xaw a jox hésité déet kaay lii lan la wax ma rek euh, yaay lu lu géwél gën a bëgg déet bu ma ne ndawal de déedéet mënut a nekk dëgg nag non mënut a nekk dëgg noonu la demee moo tax nii laa la koy joxee xaw a def rondel kilifa gi. xam nga eh bu ma ne kilifa xam nga lu réew gën a bëgg. Hmm. jom. ngor. Hmm. fulla ak fayda. yow doo géwalu model géwalu modèle day jiitu ca waar wa. Hmm. silwiise am fulla am fayda am jom yërëm baayam loolooy géwal model les géwal moderne laa wax léegi nag man. luma baye nga lu sen dom la doom la lagaree indi ko ci biir kër gi man yeung yeung ya di diko ya yap bi foko jele euh, c'est que Matar Mbaye sama xarit bo la setti won après mais ñu ba ci bop koñ bi tass ak ben pa mu wama sarax moko ah. oh oh. ah. sa ndey weer ngeen ma ci koñ bee weer weer ba ñëpp xam ne dañoo ah, weex sa bopp léegi nag ay ca accident yu faussé yi wërsëg yu tëju yi feebar booy fànk examen booy def musiba booy dàq ci kër lépp sama kër nga koy dugal maanaam mooy sarax yi yàpp moom c'est mauvais signe ndax deret la léegi ngeen dugal ko sama biir kër engagement puuj paaj leen ko daxil leen ko def leen ko lu leen neex lekk ji leen ko ci biti bu ma ci kenn tibbal bu ma ci kenn boros bu ma ci kenn tudd waaye yow c'est tout daal bu ñu paree ca mbedd ma waaw féex ba ker amee këru maam yàlla gi ba léegi kenn soonatul ràcc fa lañ koy ràcc ba mu neex buñ paree ñëw géexee ko fii noon fa woon rek yaa ak mën a jëwalu rëdd ba mu neex ah, waaw waaw ma ma ko wala ma daxin ko wala ma mbaxal ko ta sensation yaay commandé ya ci laa jëm waaw waaw apijo yaay jaaxle woo ah man dañu ne woon dañu lekk ci sarax bi kër daadaa lañ ma mujjé àbb ma dama jaxlé sax waxuma wala ci na pa ko ko ko mënoon ñuur da dana ko def du lèr la lèr la nga pouj paaj nak amul waxoon na la ko tat dama xamul yoro wéro say wala nelaw doyul nga na da ngay tam bon ah fii laa ko gis salam alaykum alaykum salam wa rahmatullah baba ça va bien man si koñ bi fi la dëkk ni mm-hmm. à côté damay faral di romb di dégg xar yu joy waaw waaw waaw waaw mané comme tabaski bi ñëw na na wut ben xar bu ndaw à euh, petit prix daal. xar petit. da nga déggoon ne yow fii daral la. waaw da nga ko bëgg a. Eh, fay lépp ku la laaj. nijaay ku la laaj te dama salaam yi. jëral jëral génn maay borom kër gi. nijaay man maay borom. Ah, maay borom kër gi xar buy jaay bu fi amoon kii duñ ko jaay dañ koy may de. eh noppil xale bee neex. ka kaay nii. waay waay waay waay bàyyi noonu lan nga soxla. man xar laa bëgg. tabaski bi ñëw na. nga ni foo man kese nekk sama kër. Ah, foo dëkk. sa boo continuer mbedd bi. waaw nga jàdd noonu. Hmm. am na kër boo am ay appartement. Hmm. premier rek laa toog dëkk. koo dëkkal. bon man maa fa nekk samay parents ñu ngi dëkk ba loolu tax maag sama jànk ñoo fa nekk. kese. waaw jànk bi day wàcc wala du wàcc. non day day fanaan mais weekend dafay dem dama koy bàyyeeg euh, weekend am. yow melal yow melal ni am nga xar. ah sëñ bi li nga wax neex xam nga appartement yooyu xar yi dañ koy yàq. Hmm. am nga xar fii bu tabaski bi jotee. Mhm. dañ ci jot. kon ma bàyyi ko fii jour tabaski rek danga ma koy indil. waaw waaw dinaa la ñëw nag di la indil foofu njëgu ngooñ mi waaw. ma foog ne maa la war a jox njëgu ngooñ. man maa lay indil njëgu ngooñ mi yow nga joxaat ma ngooñ mi. ah sëñ bi loolu moom. <laughs> <laughs> waaw d'accord dinaa ko da dinaa ko d'accord. de loolu neex na de dinaa fay mën a ñëw. yow li nga ma wax ni dafa neex ba pare. Mm. heure boo ñëwée mm. ma porte est grandement ouverte pour toi. Ah. man li la xam ci nit ni da nga am teranga merci jërëjëf wante man ni sauvage di ramasse nit ñi bay non bàyyi non sama doomi pañ la dafa dafa dafa ki dafa takali ko ah, sa bon dañ mako yone yónnee dëkk ba non ah, yow ya dëkk fi ha ah? ma maa fi dëkk ak ñom sama kii lañu man wa bop grawul dal merci jërëjëf allez à la prochaine merci jërëjëf moom ndax nar na jur jam Isa mengambil ni coker wita ko sariwa ko maginawaat sama junjungi yes, sama junjung Lailailah Ay buay Ah Buah buaya aku tiba lebok